daleen ak jàmm soxna Momy Kébé du jóg ci bett askanu Sénégal ci def lu baax bu yàggul dara ab taalibe bu Serigne Saliou te ngeen ko xam ci turu minicar moo doon tudd doomam foofee ca Patte d'Oie Builders ci la daal di invité waale woon kii di soxna Momy Kébé te loolee ngénte soxna Momy daat fay wane boppam bu baax a baax loolee géwél ya fa nekkoon duñ ko weddi ndax bañ fay jógee seen bos fees na dell maanaam soxna si del leen a baatareel bokkal leen bu baax a baax li ni mel nag li ko waral moo di soxna si dafa rëy lool ndax kat euh, doom dañ doon ngénte Serigne Saliou Mbacke moom lañ ko tuddee te ku nekk xam na fu doom yi Ndouga Kébé ji tolloon ci Serigne Saliou borom jamono soxna Momy Kébé nekk jigéen boo xamante ni ak mbaaxam foogoon na te weesu na ko loolee li koy firndeel moo di yu bëri la yëkkati te ko ci loxo nguuru Sénégal ci xeex biñ sumb ngir daan coronavirus fii ci réew mi waaye nag mu mel ni lu ni mel du betti kenn koo xamante ni buñ ne la kuy sa baay nga ni Ndouga Kébé nekkoon ab milliardaire boo xamante ni ñëpp xamoon nañ ko réewum Sénégal ndax jëf ju baax ji mu daan def waaye tamit mu donnaale ko ci yaayam soxna Marème Dieng Sala bokkoon ci jigéen ñi gënoon a taaru fii ci réew Sénégal soxna Mami Kébé nag nekk na nit koo xamante ni du gàntu mukk nit ci ab soxlaam mu mel ni rek soxna si donn na waajuram wu góor woowe di Njiko Kébé ci mën a joxe gi waaye tamit taaram mi ngi ko donnee ci waajuram wu jigéen ci mim réew nag ku def lu baax dañ koy wax looloo waral ba ñëpp nan la jaaraama soxna Mami Kébé